man maa ngi tudd Modou Diop dëkk Daara Mam Mor di ci Cheikh Diop. Ah, euh, mën a wax daal mooy fu métti di euh, kër gi mu xewee maa moom noo bokk benn baay man maa seen xalifa baay biig bi mu amee lan ma woo téléphone fekk boobu maa ngi ci dëkk bi sama mag moo fi gaañu woon mu ñëwoon ci saraxam lii bi ñu ko këpp wat sunu kaw. waaye nag lépp day gëm yàlla ni. mi bi muy am nan naka la mbir mi daal ni bi muy am ni mu amee. ma daal damaa toog ci nu woo ma téléphone. ni ma kër Cheikh Diop jëlee accident am na fa. mu ne accident bu amee nan neen ma ne néeg yi ñu yëkkati ci kaw. fi ñu toogoon di reere benn benn boor bi moo daanu seen kaw. bi loolu amee ma di jóg bi dikkee fekk naa kër gi fees dellu nit fekk naa police fekk naa sapeur. kilifa yu bari daal fekk naa dëkk ak dëkkandoo yëpp ma xool ko mu doon lu métti lool lool bàgg ci lool waa nag ma wiñu ko santaat yàlla ndax eh, bi bi ñi ci gaañu waa kër gépp mën nañ cee bokk ndax man maa ngi ñoom naa daan bokk reer moom fi ma saa ñëw moo fi ñëwee maa ngi ñoom nooy bokk reer kon bu yàlla dogalee bi ndikkee ñii reer ñeen génn di doxantu ji mu daanu seen kaw mi bâtiment bâtiment bi daanu seen kaw bâtiment bi daanu seen kaw loolu sant nañ ko yàlla ndax ñaar yi génn doxantu ak xale yi nekk seen kër maam ak man mii ñun ñëpp mën nañ cee bokk ndax noo bokk leen dab di reer kon nag bu yàlla dogalee ñii rek noo ci faatu kon ñun loolu sant nañ ci yàlla lool sant ñett nit moo ci faatu ñetti nit moo ci faatu ñett moo ci blessé waaw ñett moo ci blessé bi ñett nag ay yàlla dogal yóbbu nañ leen hôpital ba defal nañ leen ay garab ba di lu ci waat nañ leen loolu foofu eh, ci bi ko xamee foofu la toll. bi yàlla dogalee itam euh, ko Abdoulaat Ka ak commissaire bi ànd na ñëw fi taxaw na dox nañ ci taxaw nañ ci nan te war a taxawee. boo ba léegi maa ngi ànd a ñoom nu ne ci naaju dem naa police ñaari yoon ànd ak ñoom nu dikk taxaw fi nu xool ko métit lu ko. métit nu métit lu ko lool. ñi seen bakkan ay góor lañ wala ay jigéen. loo jigéen lañu ñu astuloo astufaal mos naa ko astu nger nger la sant moos ñàkk bakkanam. ki sees mooy kan yow xale yi dalaa ah caara ak ak ak Anta Diop ak caara Diop ñu ñooñu xale ñaari xale yooyu ñoo ci ñàkk seen bakkan Astu Lo de war naa am xam naa ñeen fukki at daal wala ñeent fukki manqué benn war na ci am caarat war naa am fukki at ak juróom-ñett ki si gën a doon mag ki si des xam ay juróom-ñetti at wala juróom-ñeent lay war a toll. bi gis leen noo loo yëg sa bi ma ñëwee gis leen que sama dund bi ma ñëwee que fekk kii mag mi ngi tëdd fii ñaari xel yi ngi leen tëral fii policiers ak sapeurs yi ngi taxaw bi dikkee xool leen sama dund sépp moo tukki waa nag ma dellu fa yëkkati waat sama fa waat sama xel delloo ko suñu borom ndax lii yàlla rek moo ko man ku du yàlla mënu kon rek yàlla rek moo man te mooy def ah lépp lu la teg rek sant yàlla ndax yàlla coono bu mu la teg nëbb na la bu ko ëpp bu mu la jox nëbb na la bu ko kon lu mu la ci jox rek santal yàlla. sant yàlla bi dal bi lépp daanu seen kaw wala dafa am côté bu màbb benn boor bi rek moo màbb ah, daanu seen kaw boor si des mi ngi fi boor yi yàlla dogal na moom bëggunoo tam bi nu woo borom kër gi yónnee na loo xam ne eh, loo xam ne eh, war koo jëndee beton ak suuf ba yaakaar naa lu passé suba. des na ko sol incha allah. loolu ndax xaw ci yeex teeloon na jël ay matuwaay. a ah, waaw loolu man waa xam nga tukki kat euh, programme moom euh, na nam koy la bëgg ak lay am doon du doon benn ni ni li moom xam nga ne bu xam ne lii ci mujj du ko def euh, ndax kon ndax kon fu nu solee fu nu tegalee juróomi birig sol bu nu tegalee yeneen sol. waaye nag foogu ci woon lii ndax lii moom guleen ma man maa ngi koy doog a dégg dañu gis kenn dëkk ci poto yi kenn solu poto yooyu nag te déggoo mel ne poto yooyu lu passé suba dees na ko sol ndax yónnee na xaalis bi mm. xaalis bi ko war a sol tey moom mënuñu su koo sol ndax ndax lii nu nekk ndax dañ jëgoon néew yi waaye lu passé suba dees na ko sol bi soobee yàlla lu mel ni mas na fi am musuma ko marqué musuma koo dégg mm-hmm. musuma ko fekk set guleen tey guleen tey lu ñuy sàkku lu ñu sàkku daal xanaa nu jéem nu jébbandu koor yi nu jëm jébbal ko seen borom ak état lu mu nu ci mën a dimbali ak yéen ñi xam yéen ndaw yi état lu ngeen nu ci mën a jàppale rek ngir jàppale ko na ko ci. looy waxaat ni ñu fàttaliwaat leen ci wàllu bâtiment yi li yan matuwaay lañ ci war a jël ku bëgg a tabax. léegi waa wàllu bâtiment yi daal ku bëgg a tabax bul def moom ku la ne maçon daal nga jox kooku. chef d'entrepreneur mu di ko jëndal sa plan ku ma jënd plan bu normal chef d'entrepreneur di dikk jox ko ko kenn ndax ndax tabax euh, ferrailleur maçon peinture kat ñii ñoo seq tabax bu si kenn ku ne boo jëlee kenn ka man métier nga jël ko jox ko ko yàlla mën naa dogal euh, benn benn jéey du si am waaye booy def ku ne mën naa mën na maa tabax rek wala man ferrailleur ra nga jox ko mu takkal sa fer wala nga a am nga gis bâtiment mu taxaw rek nga ne man plan bi laa bëgg nu yëkkati la plan boobu loolu lépp mën naa indi jëyee. xanaa dafa bu bees li ci kaw moo bees. dañ ko. li ci be moom yàgg na waaw li ci kaw li ci kaw moom yëggut moom. Mhm. looy hmm? ah, ah, dellu sant yàlla di sant rek ndax coono bi ñu ba naka ndax yëf yi métti na. diis na sama kaw am naa ci wu naqar waa nag wayef na tooy ndax yow mi jógee Dakar ba fii ndax dégg xam nga ne yow yëf lu nga ko yëngu ko tam kon moo ma yenu woon kilo yenu nga liibar kii yenu na liibar kon mel leen man ngeen waa liibar laa yenu kon de famille bi ni ngeen koy dundee fi nii ah famille bi ni ngeen koy dundee bi daanu seen koy dundee ñun famille bi ñu koy dundee kay ni ñu koy dundee daal mooy fi mu ne daal ah euh, xam daal la dogal suñu borom la fexe ba duutu duutu duutu amati ci biir famille bi di ñëw yàlla mu amati feneen di daal moom moom mooy dund bi moom soxna Ayda mbir mi loo ci loo ci yokk rek man maa yaay Bintu Lo soxna Cheikh Diop dëkk Jaanatu ah mbir mi moom diis na lool métti di egg egg na fa ndax man mii sama doom mooy ñaareelam asufaal mii mooy aawa ba ne ci kër gi ñoom ñaar du nu woon ñaar kenn lan mbir mi nekk fi ko yàlla dogale mooy bintu toll na diggante moom ànd naa beneen ki keneen ki nga xam ne moom doomam wàcc na ci muy penda mu gunge ko mu dem di doxantu ji asufaal tabaski ba tey sukkul reer yàlla dogal fekk la yàlla boole mook doomam ak beneen doomu penda ñu yàq reer ñu sukk di reer affaire bi wàcc ci seen kaw. affaire bi dal bi lii kii bi li ñu teg ci kaw. waaw moo wàcc ci seen kaw fekk leen ci boolu reer bi fële la yàlla dogale akub dogalam ñoom ñett ñëpp fa la ñu wàcc ñett ñu def blessé beneen xale bi bokk ak ñoom reer moo daw ñëw dugg ci kër gi woone leen suñu waa kër kii bi daan na ci seen kaw. te moom yàlla mënoon na ko cee boole waaye yàlla génnee nu ko ci ñu xëy na ñu doon doxantu jeet bu fekkonte ni yàlla na naroon leen cee boole yàlla boole leen ci bintu bi nga xam ne tam waa këram ñu nga sama kër dipp àllarba ni tey lañ fa ñëwoon ni maam dañ laa ma ñëw seet si la nga fa moom moom ñu gaañu ñoo bokk benn baay kon nga xam ne mbir moom jëfi yàlla la tey masawu nag ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan di astu nger ak waa këram nun ñëpp njaboot gi suñ genn njaboot la ñun ñëpp ñoo leen bokk jur famille bi benn la nii masawu bu baax a baax a baax a baax yaayam mi nga xam ne moom la fi bàyyi ak tout tànkam yii ak seen borom kër bii yal na leen yàlla jox xolu muñ te xam ne lu yàlla dogal jaam da koy nangu ndax bu dul woon ci kër gi man bu amewul woon ni mën naa amee neen ndax jiitu na seenub judd bu ñu deful woon kër gi accident mën nañoo génn oto laal leen te ko ni kenn du ci man dara yàlla nag moom mooy dogal te nii la ko dogalee nan ko sant yàlla bu baax a baax a baax. ki ki doon doxandu mbaar nga xam dafa nekkoon jigéen yor mbaar moom amu ci lenn kii. moom moom moom moom bi mbir mi xaw fekku ko fi dafa dem doxantu ji. ànd ak yaayu xale bi mu ñëwee bi dugg si egsiwul dañ koo kar ca àngal bële daal di koy am beneen meer moo ma ko fatal. Mhm. ca këram meer bu sant lay moo ko dugal ca këram ne ko kaay toog mënul xew ñu ne ko dara xewul ba tey duggul kër gi. mu tiitaanga jooju nag bi mu ko jàppee. démb waaw moom ki nekk jigéen ji wóoru dañ koo mujj démb ñu yóbbu ko hôpital bi muy wisitoo 28. fa la ñu ko mujj yóbbu bi ba ca guddi. lu tax ñu yóbbu ko. tiitaanga rek mhm. dafa tiit moom xam nga jigéen wóoru nga génne sa kër. ñëw jub sa dem di ji ñëw egg fekk sa buntu kër fees dell ak nit moom la ne sax mënoon na ko caa dal mhm. nag yàlla bari na sutura maire bi daal di koy naxtaan ndànk dugal ko këram jox ko ndox mu naan dalal xelam ba ma ñëwee fu ne wër naa ko ñun ma sa doom ci am na ko ko meer bu ko bu ko denc ma bàyyi ba affaire bi jeex ma ñu soog ma koo wan. léegi dama gis benn côté bi dañ dëkk ci bâtiment beneen côté bi kenn dëkk ci lu war na loolu. Euh, beneen côté bi ñoom ñëpp ci benn bâtiment ba lañ bokk moom fi la ñu dëkk. bi eggagu moom kenn dëkku ci. Mhm. moom bi bi egg rek ci lañu dëkk. fi daanu fi lañ dëkkoon. de fi fi daanu maanaam ci kaw. Mm-hmm. moom moo wàcc fekk si leen. Mm-hmm. waaye ñoom ñu ngi ci biir. te booba dañ doon reer. booba ñoom dañoo sukk ci bool bi di reer. Mm-hmm. ñoom fi ñu sukk ci bool bi di reer ñoom ñett ñooñu fa la leen yàlla moome. waaw léegi ana néew yi. ñu nga hôpitalu jànnat. jotagu leen déedéet. jotagu leen loo ciy yokk rek loo mën a waxaat ci loo xam. ah xanaa rek ñu ko sante ko yàlla rek te di ko masawu moom mi nga xam ne mi ngi ci àll bi tey mbir mi dal ci kawam muy mu jur ak njabootam jot ak soxnaam ñoom ñëpp ñu wàcc liggéey tey ji mënut a diire diire diir tey guddik tey gii ba fanaan si Touba. Mhm. loolu dong mooy luñ ci miti nag. Mhm. te xam ne nag yàlla moom mooy dogale noonu. te lu mu dogal rek jaam da koy nangu. Mhm. ba mu wootee nee naa ko sant yàlla bu baax te xam ne jaam bu yàlla teg am nattu naka nangul boppam. moom kay mënut sa wax. wallaahi mënut a wax waaw muy Cheikh Diop ma nga Italie mënut wax sax nag wax ci téléphone yàlla seere na ne mënu ko mënu ko. waa am ñii nekk nekk ba rafet kenn mësu leen a dégg kenn mësu leen a àtte mësu amuñu benn problème wasalaam. mbir mi waa dëkkuma fi de wax dëgg yàlla waaye man sama mag la ñu bokk nday wax dëgg yàlla fekkuma fi nag dëkkuma fi man maa ngi dëkk si xaw ga moom mu dëkk tali bees waaye li ma xam ci asphalte man koo seere mooy nit ku baax la ku dal mooy ki nga xamante ne ni moom la affaire bi dal ci kawam yóbbu ko ak yóbbu njabootam mooy ki móoli dal si kawam waaw terrasse bi dal ci kawam yóbbu ko ak eh, doomam dama xam si moom wax dëgg yàlla dal daal laa xam si moom baax yaatu boot ñëpp wax dëgg yàlla dal na baax na boot na ñépp yaru na man dikk ba ma ko xamee léegi asfaal mosut a ñëw wax ma baat bi ma wala ma ñëw dal ki ki gaañu tey moom doomam waaw. ñoom ko jur waaw. kon ndey doom la. ak lañ ak keneen koo xamante ne sëtam la. Mhm. jarbaatu sama nijaay Cheikh Diop la dafa tàggoo woon ak sëriñam ñëw fii léegi encore doomam moo gaañu waaye ku ñuy wax jaara mhm. am na juróom-ñetti at. waaye wax dëgg yàlla xawma ci moom benn problème bu dul baax laa xam ci moom yaatu mbokk yi lu xew mu ñëw ba biir ki démb sama yaay bu ndaw bi gaañu woon fii côté Playe sarax sa ñoo ca daje woon di waxtaan di ree mooy wan si nag bi xale yi ci tabaski ji yooyu noonu wax dëgg bu ma ci waxee leen noo xamante ni nii ak baax ak yaatu boobu ma am sànq may ñëw laa naa ki nekk bala nga koo xam dafa génn àdduna. lu ma lu baax wax dëgg yàlla baax na yaatu na musuma woon kanam goo nga xamante ne tey jii asfa war na ma kanam gi bu subaa ma gis ko woon ma geneen kanam gu wuti ak gi ma woon tey musta am dëgg rek laay wax yàlla rek a ma tax di wax naa ko fekk waaye saa yi ma ko gisee moom bala ma ko nuyu moom ay woo nuyu ma saa yoo ko gisee bala nga wax ak moom ma nga lay ree soo gisee asfaal ne soo ko seenoon ne wallaahi lancé bañam bi ngay jëkk a gis barke Serigne Touba li may seere nii dinaa ko fekk dëgg rek laay wax te yàlla tax loolu laa xam ci moom yaru yaatu kàddoom nag pour nga mu wax ak yow mu jëm kaw mosuma ko dégg kër gi mu nekk ni ma fi nekkee ba léegi mosuma dégg ñu ne kaa leen at asfaal sama nijaay sànq bi ma woote nee na mosuma am ci asfaal lu ma naqari lu dul ko wanee ginnaaw nee na mosuta am ci moom ko naqari bootal na ko njabootam gi yiir na leen bootal na ko tamit encore jarbaatam bi fi nekk tey ba xale bi eh, bokk ci sook bi nee daal wax dëgg yàlla tey la mos a am ko naqari man loolu laa xam ci bi noo ko kii rek ndax ñu biig lañ ñu woo wax na ko sama mag góor bi leen nañu noonu woo nekk sama kër nijaay dafa am lu fa xew ñu ne ko lan la mu ne benn dal moo wàcc seen kaw. léegi ci lañ jógee maak sama yaay di ñëw mu ne jërul ngeen ñëw ndax foofu journaliste yi dañ faa fees ak police yi ak waa koñ ba bu ngeen ñëwee tamit ngeen fa xam toog bi ñu xëyee ci lañuy ñu doog a ñëwee mais guddi gi yëpp nelaw daal dañoo fanaane toog ba asamaan set ndax naqar ak tiis mënoo ko am ànd ak i nelaw bi ñëwee tamit naqaroo ba léegi moo continué am nañ tiis am nañ tiis daal metti na daal metti waaw loolu daal moom moo nekk sama xanaa yàlla yërëm ko te yeexee ñu te teg njaboot gi loxo tey ñaan fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu nekk fii mu nekkoon ci àdduna fa jëm yàlla na ko dàqal waaw Asoufa la man nday laa tudd nday lay. mbokk mbokk Asoufa nday bokk nday